une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer xam na ni tukki mënta ñàkk moo tax SBB seen Brésil business ca São Leopoldo ñëw ak xarañte ci wàllu bii avion song ko nag wàññi leen ko ba noppi taxawu leen bii avion moo xam Ethiopian Airlines wala Emirates wala Turkish wala Iberia wala TAP Portugal di leen xamal ni jàppandi na noonu ca SBB Brésil ngir foo bëgg dem ci àdduna rawatina ku bëgg a jóge Brésil ñëw Sénégal wala jóge Sénégal jëm Brésil mën ngeen a jokkoo ak SBB ci numéro yii 500 519 888 04 68 wala 519 750 47 57 SBB moo leen di ñaanal ngeen tukki ci jàmm te dellu si si jàmm jàmm rek ci la SBB di dox fexe ngeen di tukki nu mu leen neexee tukki ba yomb lool ci yéen SBB moo ñëwaat di leen yëgal ni képp ku bëgg a def transfert d'argent ak virement bancaire yónnee xaalis si Orange Money Crédit Sénégal wala sax fay facture courant wala ndox wala fay wifi gaawal gaaw jokkoo ko ak Aliou Sène SBB Brésil si numéro bi 519 81 88 04 68 ak SBB njàqare jeex na ci wàllu transfert d'argent gaawal gaaw jokkoo ak Aliou Sène SBB Brésil si numéro bii 519 81 88 04 68 ak SBB njàqare jeex na ci wàllu transfert d'argent asalaamaaleykum téléspectateur u Rafah TV amati nañ mbégte ak bànneex seen émission bi di émission axlu xasida ñu baaxoo ci ànd ak ay jàngkatu xasida yu fare fi ci dëkk bu tedd bi di Touba ak li ko war tey nag ñu dalloo Serigne Khadim Akasa fare fi ci Touba bala ñuy xuus ci biir waxtaan bi ak moom dañu koy jox mu daal di nuyoo ak ñi nga xam ne ñu ngi koy teewlu ci Rafah kon Serigne Khadim bismillah waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu ñoo ngi siyaare ñëpp tey ñaan ñëpp tawfiix ak jooy di siyaare it suñu waajur wa soxna Oumy Guèye it ñaan si borom defal ko tawfiix ak barke ak ndam barke xasaayit ak borom te di la siyaar bu baax yow tamit soxna jaaratu lay ngay ko baax lool yal na yàlla barkeel la yow it barke xasaayit yi Aïcha jaajëfal nañ la ci nuyoo bi bala ñuy xus ci biir waxtaan bi dañ lay bàyyi rek nga ubbil ñu ak benn xasida ñu door a ñëwaat ci waxtaan bi جزاك يا أخي إبراهيم مولاك خير الجزاء والمنى دارك مولاك فاغلب بأنك خنس وردم أبدا وسأكرمك في دنيا وأخراك فدم على صدقي والإخلاص متعدا في سر والجلد كي تنمو كي تنمو مساياك حمدي وشكر لمن كل بيسارا lu waari dan dunu sux tilanda sarsara lu asanai warirwan bila sixatin musxadiri min bana day maanan sar lilahi lilahi lilay kulina dabar makrumatan min hartallahu fi rajam man إن الذين إلى سر سارق قصد سيارة فرقوا دارين jërëjëf soxna Jaratu Lay jërëjëf sëñ Xaadim njàng mi neex na ayca ñu bëggoon xam kan mooy sëñ Xaadim Akasa. waaw waaw sëñ Xaadim Akasa de nangu la loo xam ne lu xeebu la di ndaw it ne yi yàgg nañ ci nag yàgguñ ci ndax ba ñuy ndaw di nekk daara ba léegi ñoo ngi ci xasida yi nekk ndakaaru nag daanaka Touba dañ fi dikk ko dem rek waaye ndakaaru lu ñu fiite yor yor tamit suñu liggéey waa di ko gérer muy njaayum iPhone mi waa kay ñoo ñoo ci loolu daal xel ñu yëngu ins bi pour le moment wallaay. a waaw xasida moom ak bëgg lañ ci am ak bëgg rek ndax sunu mag bu ñu wax Serigne mu Niang ak Akassa maa ngi koy siyaar bu baax moom it te di ko ñaanal tawféex Euh, nu ñu mel ci xasida yi tey rek jëmm ma ndax moon ci teete waa kay euh, giir na ci bu baax a baax ba ak saa ji bu njëkkoon dañ cee nekkoon ragal ci waaye moo ñu may fit loolu daal moo ñu dugal ci ak atam ji ak tam bëgguñ bëgguñ suñu ak saa sàmm ba fu mu mosaane jàngi jee fu mu mosa nekk rek dañ daan nañ ko fa daan fekk ji ngir bëgg guñ am jëmmam ji loolu ñu yóbbu ci xasida yi nag ñu am cofeel googu ci moom ba far jaari fa di ko roy ba suñu borom def ñu egg tey waaw gis nañ ne sëñ Xaadim dañ koy dàkkantale turu sëñ ak saa saa moom mën nañoo wax ne eeram nga doon jàng léegi moom nga yor moom nga roy lan moo tax nga choisir sëñ ak saa saa lan moo tax nga taamu ko ndax gis nañ ne jàngkat yi bari na lool nga taamu ci sëñ ak saa lan nga yëg ci. waaw waaw waaw waaw soxna Jaratu Lay maanaam euh, sëñ ak saa tax ma taamu ko maanaam njàng ma dëggu ga ak sell ga loolu mooy ne jàngkat yëpp baax nag waaye ku ci nekk tam sa féete. loolu moo ci nekk ndax ku nekk ak ak ak nga féetal ndax suñu ak saa dafa nekk lu ko waxoon dafa yàgg sori suñu xol loolu waroon ñu di ko roy ba fi ñu toll nii loolu waroon ñu di ko roy ba fi ñu toll loolu moo ci nekk. dafa am yu ñuy faral di seetlu daa mel ni ci ñuy ak saa Samb ah, comme dëggu am na xam ne sax dañuy tuddee ne dañuy yéene dëddu àdduna ak noonu ndax loolu moom njàng mee ko laaj wala suñu ak saa ngeen koy roy. wallaay waaw déet maam ah, ak dëgg moom jagleeg sëriñ bi lay doon maanaam day sof suñu borom mu def ko ci yow waaye nekkul loo xam ne xam nga tamit boo ko roy da nga ko roy ci jëmmam roy ko ci jëfalinam ndax roy ak tasaam bu taxut a sell sell li tax nga sell yaa ko liggéeyal sa bopp loolu moo ci nekk ndax ak sa li tax mu am euh, dëgg googu mu am ci xasida yi moo ko liggéeyal boppam waaye nag ndimbala Sëriñ Tuubaa da ci am loolu moo ci nekk waaye euh, dëggu gi moom njàng ma rek wane na ko ndax ak saa ku ko roy mënoo mënoo nekk ni kuy caaxaan loolu moo ci nekk Mm-hmm. Mm, ak Aïssa macha allah sëñ Xaadim ci leeral yu am solo ñu bëggoon a xam sëñ Xaadim moom ci eeru sëñ ak saa bi la yam wala dafa am yeneen eeri mag ñoo xam ne yenn saa mu boole ko. waaw waaw waaw Xaadim ak saa moom ci eeru ak saa sàmb la yam ak yi nga xam ni moo ngi koy fental boppam. waa kay waaye nag jé jénneeguñ ko nag moom béralaguñ ko. oustaz mm-hmm. jërëjëf Serigne Khadim ci leeral yam solo eh, ndax Serigne Khadim jamono ji ñuy wax moom ma ngi am ay programme ci biir dëkk bi la yam wala am nga ay contrat yoo xam ne day génn ci biir. waaw sa moom mi mi ngi jàng ji fu ne ci ci ci Sénégal ndax Ndakaaru dañu fay jàng ji wala ci àll biir Kasalik dañu fay jàng ji boole ci nag ak ci biir dëkk bi. Mm-hmm. Mm-hmm. ndax Serigne Khadim moom ma ngi faral di fanaane base wala day barkeelu rek. waaw waaw waaw waaw damay base yoo dama koy fanaane. Mm, ndax njàng moom daanaka boo ci nekkee yàgg ci moom faaw nga am programme yoo xam da nga koy fanaan du ci mën a ñàkk loolu moo ci maa ngi ko bu baax euh, si Abdoulaye Mbacke sëñ Mourtala Mbacke mos na ko wax ne ko euh, xasida yi mbaa yéen ngi koy jàng maanaam ñu ngi koy jàng si Mourtala ko mbaa mbaa ñu ngi leen cee fay ko mu ne ne ko nañ koy jàng na ko mëne moo ci nekk kon yaakaar naa ni laaj gi moom jàng ngir Sëñ Tuubaa nag am na waaye jàng kenn daamul fayam loolu moo ci nekk ndax ku ku lay jàngalu ba pare euh, rawat na nga ne kilifa yor say njaboot te ci ba pare euh, yor say mbir daal yor say war a paas war a kii doy na war a faaw nga laaj xaalis muñ cee ñàkk loolu moo ci nekk. da ngay faral di dégg kat jàngkat yi ñu naan xasida mënta ànd ak dara ndax boo ci nekkee rek bu yàggee da lay nangu ñooñu nga xam ne da yem ci xasida yi te amuñu métier mhm. loolu lu mën a continuer la wala njàng mee ko mënta continuer loolu moom d'accord ma damay laaj ndax xasida ki mën a ànd dara man maa ngi nii <laughs> maa ngi ci dara te lu ma bëgg a faj faj ko ndax loolu moo ci euh, li ñu faral di wax rek naan nit boo du liggéey da ngay dem ci programme bu na waxut di nga dox dem foo xamante ne dañ la fa jëppee waaye bu fekkee am nga ci loo jàpp doo neexal kenn ci dara maanaam lépp lay wër ci doomu aadama rek dana fekk nga am ko yow ba pare loolu mooy tax daanaka doo ca ñaaw. Mhm. Euh, dañuy faral di gis tamit yeneen jàngkat yi nga xam ne dañuy dugg ci ay xeesal ay rocituñ ak maanaam wàllum àdduna daal te daanaka duñ ko faral di gis ci ñuy roy Sëñ Akka Sarr lan moo waral loolu. wallaay amoon koy de ah xanaa xëy na kay xanaa ñoom dañoo gàtt xam-xam rek waaye Euh, xeesal moom musicien sa waru koo def waxuma jànkat koo xam liggéey ko Sëriñ Tuubaa nga nga nga nga nga présenté ci àdduna nga war a nekk roy waay te ci yaakaar naa ni kon euh, la ngay def daal dafa war a nekk loo xam ne du dëppoo ngërëmal Sëriñ Tuubaa la <laughs> loolu moo ci nekk waaye nag jànkat buy xeesal ak ak rocc tuñ moom yaakaar naa àndut <laughs> allah sëñ Xaadim sëñ Xaadim ndax ah, mas ngaa dem studio génne lu mel ni ay son wala ay clip bu fekkee tamit mas na am ndax am nga ko la produire wala sa man-manu boobu. waaw waaw waaw mos na maa def benn son nag boo xam ne tux fàttu laa ko jàngoon loolu mos naa ko def ku ñuy wax Cheikh Omar Ndiour moom produire woon ma def ko. ñu cee dikkaatal ci ay bay du gàtt. Mhm, wallaay wàllu ma loolu am na moom ndax maa ko jàngoon ak saa ji yàgg di ñuy wax démb waa kay ci laa nekkoon. alhamdulilah. wasala abada. xoolal la si biir laaw daa ba daa Seydina Muhammadin wala Ali wasaw bi Seydina Alin waali wasa wa inil yawma suuta wasuli loo bi asmaai sawi tafadduli فقلت يا غريب يا مجيب سل على الذي بي تجيب واقبل بالنسم يا موسى يا كريم وابلغ بي ينادي ما يرام ربي بنوح وبإبراهيم لغفر ذنوبي وفي رجيما وكن بموسى وبجاه عيسى وقيل دريا وقرا بوسى وبمحمد رسول الله غلي خير صلوات الله سمع عليهم لعب إيمانا خرسان بالإسلام خرسان بالإسلام يسام الأنصارنا بحرمة الصديق والفاروق جلي بالإخلاص وتوفيق بأن عثمان أخي نورين وبعلين وعلي سبتين خبلي فيه خبلي فيه دنيا عين ورايا أدر والولو المسايا بحق bi بي سبير وحق سعد نجني من ديري وبسعيد وابن عفي نجني من كل ما من كل ما أخاف ومن فتني waaw ndeysaan noonu lañ ko defee woon ndeysaan ñu bëggoon a xam loolu moom ki la ko produire woon naka la demee woon ba tax mu produire la ko waaw waaw loolu moom euh, Cheikh Omar Diour dafa nekkoon kilifa goo xam ni ci xalifa yi ñooy woore yàlla yàlla ci la bokk daf ma bëggoon daal def ma def jànkatam fu mu mosaan demit dem it ñu ànd di di ko taxawee ci ay bis yu bari mu bëgg ma ci nag lool daal di ma nag faaw ma di la nga jéem a jëndee son ñu jéem ko def clip waaye bi ñu nee boo ko def clip nag yaakaar naa la ko gàntal ci man la moom loolu moo ci nekk. Mhm. jërëjëf macha allah Serigne Khadim loolu am na solo ndax ci aw gisin ci niñ koy déggee day mel ne roy sëñ ak saa xaw naa metti ndax yéen metti na ci baat wala ci déggin bi rek mooy metti noonu ci ñun ñi nga xam ne ñoo. waaw walaay wér na di wér na njàng moom yëpp a metti waaye roy ak saa moom da cee raw ni ma ko faral di waxee ndax eh, ak saa moom boo ko boo ko dee roy waxuma laa baat bi rek waaye sa yaram yëpp day jàng daanaka foo tëdd da nga nelaw. ndax méttu njàng mi maam foo ko foo natt rek wees na ko ndax euh, néew na nga seen kuréel ak tasambu te te am jom jàng cinq lu mat cinq minutes te yar te yaram wi tooy xib xam nga loolu moom yaakaar naa aw ñax lu koy jënd dooy ceexan loolu moom njàngum ak saa moom métti na ba fu métti yam wax dëgg yàlla métti na lool. sëñ Akassa ndax sëñ Akassa yenn saa yi ma dem ay programme di la wala bu amee ngant dina la jox programme. wallaay non loolu moom defalaguma ko defalaguma ko waaye daal dañuy daje ci programme yu bari te ci. te it tey it sama waay la it maa ngi koy siyaar bu baax moom it di ñaan suñu borom guddal fanam te wéral ko te defal ko tawfiq ak barkeem dem sama waay la moo dëgg yàlla nit ku baax la daal wax dëgg yàlla séq nañ séq nañ daal lu rafet ta loolu rek moo ci am solo Mhm. waaye loolu nag dëgg yàlla si ah, defeguñ ko xay na nag dafa ñëw gu daay war a jot yomb mhm. mhm. a jërëjëf sëriñ Xaadim ndax jamono ji ñuy wax ak yow sëriñ Xaadim moom a ah, fan la toll ci xasida yi ak fan la bëgg tamit ëllëg xasida yi yóbbu ko fa ak tamit lan la bëgg liggéey ci xasida yi ba ëllëg euh, ñëpp xam ne lii sëriñ Xaadim moo ko fi def walaay wénd wénd maanaam li ma ci bëgg daal mooy que ni sama jëriñ fi mu nekk ma dem ba egg fa maanaam ci ci ci passif ak ci jom ak ci góorgóorlu ba romb ko nag laay ñaan nag jéem a am sama yëfi bopp teg ndax ak sa sàmm dana dañuy faral di wax naan ñu ah, roy gi may roy sama avantage la man waaye roy gi nga xam maanaam seen erreur bopp yi ngeen jàng mooy seen avantage kon daal ñaan suñu borom def ba dem daal ba yor sama yëf bopp ñu may roy man tamit kasalika loolu daal mooy sama objectif ci mbir mi la jaajëfal nañ la bu baax sëñ Xaadim euh, ci waxtaan bi moo ñuy gunge tey seen émission Ahlu Xasida muy sëriñ Xaadim ak sa euh, di ko mën a jàng moom tamit sant nañ ko bu baax ci wuy si beeca sëñ Xaadim naka nga gisee njàngum démb ak tey maanaam mag ñi ak ndaw ñi tey mm-hmm. walay wér ne waaw mag ñi moom wax dëgg yàlla mooy léegi wax sànq ci commencement émission bi rek jànkat buy xeesal ak jànkat bu rocci tiñ ndax lii xew ci njàng léegi amuloon ca mag ña mag ña xamuñu loon loolu tey tamit euh, mag ña seenum njàng wax dëgg yàlla gonay tey ji bu leen royee rek du duñ sànku loolu moo ci nekk waaye njàngum tey moom lu ci bari lu ci bari mën naa defaraat daal ndax lu ci li ci xew bari na lool ay dóor rek di topp nit ngir xasida di ko wayal ngir xasida di ko wayal xasida yi koo xamante ne si jagawul xasida loolu lépp am na ci xam nga loolu tamit mag ña tal amuñu gi taluñu ko loolu moo ci nekk loolu moom ci ci yàqu-yàqu teg jamono ci la bokk loolu moo nekk. wayal koo xam ngir ko ngir dafa bëgg sëñ Tuubaa dañ koy wayal ngir lu mu leen jox ñu def ci poosam. Mhm. loolu tamit da ci faral di am lu bari ay ca al nan ngay def sa digganteeg ñi nga xam ne ñooy roy sëñ Akassa muy sa moroomi jàngkat yi seen diggante naka la demee. waaw suñu diggante moo wax dëgg yàlla euh, bu ñu amee xew ñu ngi koy yëgalante te tamit ñu ngi demee ñu ngi dikkalante boole tamit ndax euh, da ngay far damay faral di dégg sax jànkat di wax naan waa waa Kasaa yi ni ñu mel néewaa na ñu ko ñoo xamante ni si ñu ngi roy ñeneen ba noppi ba noppi mel ni te mooy ndax waa Kasaa yi digal dañuy xàccandoo di dóorandoo euh, gaa nag nekkuñu groupe boo xamante ni si ñu ñuy aw la ñu doon waaye nag fu ñu dajante suñu biir moom danañ war maalante ba mel ni ñoo xamante ni dañuy ànd di aw wante bis bu rafetal googu mu am na suñu diggante. li ñu dese ci waxtu sax bariwul ndax euh, mu ngi jëm ci jeex waaye dañ ñuy wax rek euh, naw ñi nga xam ne dañoo jóg ngir sóobu ci xasida yi euh, ndax dafa laaj ñu jaar tarbiyewu ko wala dafa kii rek ñu jóg rek dugg ci biir programme yi yor micro di yëkkati xas. Mm-hmm. walaay walaay waa lu wér loolu wér ndax xasida moom jàngatu xasaay suñu tubaab koy tànnaloo boppam waaye nag li nga xamante ni moo la ci jàllale yaa koy liggéey la ci jàllale. yaa koy liggéey wax dëgg yàlla ndax euh, nit moom mënoo xëy rek ni damay jàng te tarbiwoo ko mënta nekk faaw nga tarbiwu dem jéem a toj sa baat maanaam nekk ci yu bare yoo xamante ne si ndax ndax ndax comme comme moom nga yaakaar wax dëgg yàlla kon yaakaar dañ ci sonn mi ngi mel nit koo gis mu jàng métier rek bëgg naa doon professionnel ëllëg ba ber di ko liggéey loolu moo ci nekk kon loolu mën cee ñàkk Mm-hmm. jànkatub xasida sëñ xaadim naka la war a ba ba foo xamee fépp fu mën a teew rek bu buñ ko gisee rek ne jàkk rek xam ne li ñu njëkk a mooy kii taalibu Serigne Touba la jànkatub xasida la ban melokaan la jànkatub xasida war a yor noonu lay nga dëggee na jànkatub xasida la war li ci njëkk moom mooy mooy diñ jànkatub xasayit dafa war a diñ am la am fayda ci boppam te bañ a dugg ci lu ñàkk fayda loo xamante ni si luñ ko yebe la ndax li Xaadim Géey daan wax rek naan ku yaakaar naa jël xasida topp sa ginaaw di la ko yëkkatil boo ko yaakaaree ci man ma ma siim jox lekk ko moom ko gënal kon yaakaar naa ni fulaak fayda jooju jànkat war na ko mën a am ak tamit fonk gëm fonk jaam yàlla gëm ko ndax loolu moo ci moo ci am solo jàngatu xasaay boo ci boo ci nekkee référence nga war a doon waaw te nit nitu diine nitu diine lan lay bàkki dal comme que nitu diine lay bàkki wax dëgg yàlla roy waay nga war a doon ok maa ngi dénk ñëpp daal ñu fonk fonk seen jëmm ndax doomu aadama moom li ñuy faral di wax naan seen sa jëmm boole ko joxee danañ dañ koy nootee dañ koy noote yàqati ko def ni def ni musaar agité buñ paree sànni ko yow nag yaay xam ki nga ko doon bala lu ñu laa dara yaa xam yaa a xam ki nga ko doon jàng ko si daal a ko waxee comme ne ko kilifa ga daan waxee ndëndam buur kenn du ko tëggal baadool la ayca ñuy siyaare bu baax jàngkatu xasida yëpp euh, ndax fépp fu jàngkat teew rek teewaaleel na fa ñëpp tey nag ki leen fi teewaaleel muy Serigne Khadim ak sa euh, Serigne Khadim xam naa waxtu bi mu ngi jëm ci jeex dag ñu yëkkatil xasida bi nga xam ne moom la ñuy tëjee jotaay bi bu ko defee bi daal di ci kàddu yu mujj yi door a yëkkati jotaay bi hamdan li munsili danaa wa daa'i wa munsili sifaa ربعد بدعائي ليدفع بغن البلاء سمع لا من خيس ماذا سامرد يبر بلا بدين وفاس بالخرب محمد تبيبنا لكام أسكى سلامي ربنا الكرام والآل والصحب سبع علائي ما تاجس الأسهام أسهام لصفائي هساء وين يوم سوء جاي ملتقيا حضن المجاء بدائي وسقى إليك ما من الضرر خلصنا قلالي متدار يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أدفع درنا بجاي خير العالم الأكرم سما بيبني رمضان سمي يلا يلا يا رخان يلا يلا يا رحمن يلا يا رحمن يلا يا رخان يلا يا رخان يلا يا yallaahu yaa ya daaxu yaa raxmaanu yaa raximu yaa baru yaa karim yaa azimu اغفر ذنوبنا تقبل منا وخمنا وتجاوزنا وانزلنا يا ربنا خير الام مكان ما كان ما نخاف من سر خم وهب لنا الآداب والمسايا وقفنا فاتي ورسايا وهب لنا عيسى خراتاتي وقفنا الكسلة في الأوخاد يا بر يا لطيف يا معافي يا من أمر الورى يا سافي أنزل سفاك مكان دائي ولا تعاملنا تعاملنا بالابتلاء jërëjëf soxna Jaaratullaay sunu xol seet na lool jërëjëf sëñ Xaadim ci njàng mi neex na lool macha allah ñuy ñaan yàlla wéral baat bi yokku man gi ca sëñ Xaadim euh, naka programme demee ci biir dëkk bi di Touba ndax boo xoolee day mel ne njàngum kuréel mi lañ gën mhm. loolu moom lu wér la ndax kuréel mi daal ñoo ngi jàng waa ñu ne ñoo ngi jàng daf dëgg yàlla wax dëgg yàlla xam nga mbir moom daanaka doy na war ndax bërëb boo dem bu fu kuréel war a jàng boo dee xool lu ci bari jànkatu aw yi sax ñoo koy ñoo koy taxawal ndax jànkat dañuy def seen i bis soppe yi dañuy def seen i bis waaw njàng moom ci dëkk bi moom bari na ndax yaakaar naa néewaan na nga toog tuuti rek loo loo loo déggul ñetti jàng yoo xam bokkul waaw jàng wax dëgg yàlla ci dëkk bi moom ñu ngi jàng fu moom dëkk bi moom macha allah moom amul genn suuxee. ayca ndax sëñ Xaadim moom am na bis boo xam ne mi wala su fekkee amagu ko. boo xam ne dama koy taxawee man ak suñu booy koñ yi waa kay ñoo koy taxawee at mu jot di ko def muy màggal Touba ba ci ñaari fan ya waaw wala bëgg naa sama bisu bopp boo xam ne dama koy def moom waaye lu jot yomb incha allah rabbi Mm-hmm. bàyyi la nga tàggoo rek ak li nga xam ne message bi nga xam ne di nga koo jàllale sa mbokk yi nga xam ne ñoom nga seexal ci njàng mi rawatina ñuy roy sëñ ak sa daal di tàggoo toowaale. Mm-hmm. lay wéy na maa ngi maa ngi siyaare ñëpp di siyaare wala suñu jëwriñ ja sëriñ Njàpp Mbay mi nga xam ne suñu teewaay fekk jëmal ko suñu borom jaarale dañoo suñu borom guddal fanam te wéral ko muy ku baax di ko xam ni ku ñàkk ñaan la ñoo suñu borom barkeel ko defal ko tawfiix ak dam barke borom Tuubaa maanaam li may li may di may jàll daal mooy que ni jànke dinañu gëm seen bopp waaw nañu xam li ñu yor ndax li ñu yor lu riche la muy xasaayit ndax des fois sa dangay jékki-jékki dégg ñu naan ah, jànkatu xasida maanaam moo ko milliardaire su réewuñ ndax foo ko fekk lu riche lay sol te biir amit lu baax a ci dem. kon yaakaar naa nit ku ñu dem ba bàkkee la loolu wax dëgg war ngaa xam ni nga yor lu mu doon maanaam bàkke googu ñu la bàkkee ngay sol lu baax ah, mel noo xamante ku la gis ku la gis bëgg la sopp la wax dëgg war ngaa wane loo xamante ne si fulla ak fayda lay doon rawatina cadre liggéey liggéey daal sa émission bu ñu mën di bu ñu mën di invité ci lay ci lay tijjee moom lay tëjee ñëpp nañu liggéey ndax kenn du leen yàpp ñëpp nañu liggéey ndax kenn du leen yàpp ndax boo liggéeyut da ngay dem ci programme boo xamante ni si waxuñu la ko. boo boole ci tamit kasaalika dana la jëppee ci bërëb te yooyu yëpp wax dëgg yàlla ñàkk liggéey moo ci nekk ndax ni ku nekk boo xëy war nga joxe dépense wa am nga sa soxla bopp yoo war a def te yaakaar naa ne njàng mi euh, boo ci tollagul ba yenn niveau yi am na ci yu bëree bëri wax dëgg yàlla boo ko deful rek danga def loo xam xamante duñ lay xeebe la lool daal maa ngi koy dénk ñëpp di ko dénk ñi mu bokkal ak Sadji ak képp kuy ko Sadji daal maa ngi koy dénk jëf mhm. sëñ kontaan nañ bu baax ci wuy si bi nga wuy si woote bi ayca mbokk yi seen émission Ahlou Khassida la woon ki ñu doon gunge mbiri sëriñ Xaadim ak sa ñooy sant sama ñaari boy yi nga xam ne ñoom laa jàkkaarloo woon muy Baye Serigne ak ci caméra yi ñu ngi leen di jox dig daje suñu beneen jotaayu émission Ahlou Khassida ci beneen jàngkat jërë ngeen jëf

ne xam na ni tukki mënta ñàkk moo tax SBB seen Brésil business ca São Leopoldo ñëw ak xarañte ci wàllu billet avion song ko nag wàññi leen ko ba noppi taxawu leen billet avion moo xam Ethiopian Airlines wala Emirates wala Turkish wala Iberia wala TAP Portugal di leen xamal ni jàppandi na noonu ca SBB Brésil ngir foo bëgg dem ci àdduna rawatina ku bëgg a jóge Brésil ñëw Sénégal wala jóge Sénégal jëm Brésil mën ngeen a jokkoo ak SBB ci numéro yii 519 888 04 68 wala 519 750 47 57 SBB moo leen di ñaanal ngeen tukki ci jàmm te dellu si si jàmm jàmm rek ci la SBB di dox fexe ngeen di tukki nu mu leen neexee tukki ba yomb lool ci yéen SBB moo ñëwaat di leen yëgal ni képp ku bëgg a def transfert d'argent ak virement bancaire yónnee xaalis si Orange Money Crédit Sénégal wala sax fay facture courant wala ndox wala fay wifi gaawal gaaw jokkoo ak Aliou Sène SBB Brésil si numéro bii 519 81 88 04 68 ak SBB njàqare jeex na ci wàllu transfert d'argent gaawal gaaw jokkoo ak Aliou Sène SBB Brésil si numéro bii 519 81 88 04 68 ak SBB njàqare jeex na ci wàllu transfert d'argent